jox la sama bés bi tey sama teewaay xam naa xam na ci man waaye moom moo ko ñàkk ba def parce que fii ci région de Thiès laa bokk département Tivaouane laa dëkk parce que fa laay sëy dëgg la maa ngi militaire département Dakar waaye Thiès laa dëkk Tivaouane damay teew malgré sama agenda bu chargé je pense que dama war a ñëw pour sargal jigéen war leen gën a ànd ñoo bokk ñu bëgg ñoo bokk fuñ jëm kon maa ngi di félicité encore une fois di leen ziar bu baax di nag nuyu nag koo xam ne li yëpp ma ko waral mooy son excellence le président Macky Sall. neex a àndal bëgg jigéen ñi ak a gëm Sénégal kooku kenn la suñu mooy son excellence le président Macky yaakaar naa ne ñun jigéen ñi bu ñu renforcer suñu positionnement tey taxaw ba tey ñu wax ay honorable ñu wax ay haut conseil. loolu liggéeyu président Macky Sall la parce que moo la woon côté la loi sur parité jox jigéen ko dëpp ëbbatiku nag dañuy jàppale waat jigéen ñi nañu renforcer dañu renforcer ak capacité dañu leen jox ay financement tax ñu a ngi di ko sargal di ko ziar di ko wax ñun ñun rek moom la ñu àndal te di ko jàppale ci loolu jox ñu jigéenu Sénégal yëpp kon jigéen ñi sama turu ak turu gouvernement Sénégal turu président Macky Sall leen dox merci encore parce que jigéen ñi président gën na ñoo ko fal xam naa ñoo ko jàppale parce que benn jigéen desu ginnaaw jàppale son excellence président Macky Sall des élections passées kon maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp damay bañ a gudd yaakaar naa thème bi tey te boobu importance bu ñu waxee femme wax politique wax religion def naa loolu thème boobu gën a li xam parce que jigéen ñi ñu fi toog ñëpp ay politicien lañu waaye a naw dañ dafay metti waaye jërëjëf suñu borom jëkkër yi nga xam ñoo ñu dem ci politique bi dem suñu borom kër yi ñu dellu si kër bu ñu xam lu ñu xew suñu biir kër kon ñoom loolu waaye loolu wax cooli cooli góor gi la kon ñu sant bu baax suñu góor ñoom jàppale